salaamaaleykum fan yi dafa am benn extrait vidéo bu ñu publier mel ni dafa am ñu ñëw di wax na waaw yow comme kay yow li fi nekkoon nee nga loolu wérul kon kay wax ñu li nga xam ne mooy lu wér li wér de moom wax nañ ko xanaa kay <laughs> xam nga ay nit suñ leen miinalee lu compliqué lu jafe dangay dem ba soo leen waxee lu yomb dañuy jàpp ne loolu mënul nekk wala boog warul mën a doon loolu xam nga loolu li ñuy li ngeen di wax sangu set yàlla dogal na ñun wax nañ ci depuis ay at te saa yuñ ci waxee dañuy indi preuve yi teg ko ndax li ñuy wax ci wàllu junub yàlla ñaari yoon képp la ci wax ci alquran mi surat 5 verset 6 ak surat 4 verset 43 mi suratu maida aya 6 ak suratu nisa'i aya 43 xaw man d'abord su may wax damay njëkk a wax ni maanaam tur wi ngeen di utiliser sangu set damay wax ne sangu moom fu ñu ko waxee xam nga sangu tilim loolu amul sangu fu ñu ko waxee set moo tax te da ngay gis mbir la moo xam ne da ngay gis ci misaal seen ustaas yi ay jamono ci télé yi wala ci rajo yi da ngay dégg ñuy wax naan. am na ay mag ñoo xam ne am na nit ñoo xam ne dañuy dem ba doon mag te mënuñoo sangu set nangam nangam xeet yooyu nga gis yenn mair yeeg yenn paa daan gis sama genre gi wala yenn jeunes yi maanaam di leen wax ne dañoo bëgg ñu jàngal leen lu ñuy wax sangu set nga xam ne ay xeet la nit ñi daan sonn ci yooyu ñenn ñi ñu ciy tayal lool te loolu nit ñi xam nañ loolu ñu bari dañ ciy tayal te fekk ne muy meex maanaam. lépp lu ngeen gis ci diine mu nekk lu jafe lu compliqué xam leen ne du njàngaleem yàlla loolu depuis des années maa ngi wax ne diine lu ngeen ci fekk mu jafe mu compliqué su ngeen ko toppee ba ca biir empreinte nit ngeen cay fekk yàlla diineem loolu amu ci complication yooyu amul ci diineem amul ci njàngaleem loolu ñuy wax naan da ngay xaaj see da xaaj jëmm ji commencé fii def nii jël commencé ci kaw dem ci suuf loolu wérul loolu du njàngaleem yàlla yéen da ngeen xamul seen mbiru ngir yi problème yi ngeen am yépp ñoom ñoo ko créer réer gii nga xam ne ci leen nekk mu nekk lu yàgg depuis des génération et des génération ñoom ñoo ko créer parce que ñoom seen bopp dañoo juddu fekk ay nit créer ay text ñoom ñu juddu fekk fa texte yooyu sukkandiku ci texte yooyu nag di indi seeni xalaat ak seeni gis-gis ñu bind loolu ci ay téere loolu ñu tasaare ko mu jur yii nga xam ne moom ngeen nekk te yëgu leen ko xamu leen ko su nit ñëwee di wax li yàlla wax ngeen naan suñuy maam lii kon dangeen bëgg a wax ne maam diw wala maam diw wala maam diw te maam diw yooyu dix-neuvième siècle bii la di diine ji mat na ci bi fi yonent bi di nekk téereb yàlla mat na ci bi fi bi di nekk ñiy wax ci diine yàlla ay nit yu tudd seeni maam yu fi nekkoon au dix-neuvième siècle ba dugg sax ci vingtième siècle ñuy wax ci diine yàlla ñuy tudd ay imaam diw waxoon na te imaam diw bi muy judd fekk ne diine ji mat na lu yàgg te diine ji nekk diine yàlla yàlla joxoon ko yonent bi mu ko daan jottali di ko jaaree ci téereb yàlla ay nit ñoo xam ne dañoo judd rek fekk fii dara ñu jox leen ko ñu jàpp ne loolu mooy dëgg su nit waxee ñu ñëw ne dañuy wax naan ah waaw lii te kii maa te kii wax ba tey waxul waxu boppam waxul waxu baayam waxul waxu maamam lii la yàlla wax fii la ko wax te li ñuy wax dafa yomb depuis de années maa ngi koy wax maa ngi wax ne ñun lépp lu ñuy wax képp ko am loo cay wax jarut ngay sonn indil preuve di nga dund ba dee doo ko indi te nee naa li may wax nii yëpp amul ku ci mën a ñëw di ci werante de déedéet moom kay toog fee ah kii dafa réer ah kii nangam kii nangam loolu man su dee man personnellement kii dafa réer kii dafa sànku kii day réer laate loolu du dara ci man xam nga ndax lan alxuraan yàlla moo wax ne mooy gindi di jëme ca la gën a jub inna haazal quraan di lillati hiya aqwam alxuraan ji mooy gindi di jëme ca la gën a jub kon koo xam ne ak njuba ko wala la gën a juba na dem ci alxuraan ji yàlla moo wax ne chahru ramadan allazi unzila fihi alquran lu mu teg hudan linnaasi alquran mooy ak ginde nit ñi alquran tey moom la yàlla wax ni mooy ginde di jëme la gën a jub kon koo xam ne ak njub rekk ko ñor téereem njub bi moom du ñaari téere benn téere la li ñuy wax sangu set nit ñi ñëw di wax daan léegi yow dañoo buggoon nga wax ñu naka lañ koy defee moo ne wax nañ naka lañ koy defee xëy na kay la wax moo yomb ak yéen par rapport ak lañ leen daan wax te li may wax nag dafa leer dama ne képp ku ngeen dégg laa wax lii may wax nii képp ku ngeen dégg wala képp ku ngeen dem nee ko diw nee na yàlla lii la wax ci alxuraan miy wax leneen nee leen ko jox ñu. preuve boobu li ngay wax yow li ñuy wax lépp képp ku am loo ciy wax indil benn preuve buy saxal li nga gëm li ñuy wax nii képp ku bëgg a wax lu képp ku gëm lu wuuteeg loolu wala kuy wax lu wuuteeg loolu na indi preuve am dina dund ba day du ko indi ku mën a doon nag laa wax ñépp ci bokk liñ leen jàngaloon wérul du diine du islam loolu sunnisme la du islam yàlla li mu wax ci loolu ñuy wax junub su ngeen demee ci surat 5 verset 6 aaya boobu mooy wax sax ci wàllu njàpp yàlla wax ne yaa ayuha alladina amanu ida xumtum ila lsolaati faxsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ilal ka'bayn mu wain ci lan wa in kuntum junuban fattaharu ku dem ci vidéo 27 yoy gën nañ ci yaatal ci baatu junub bobu sax ca boppam ci al alquran nak ni yalla di jangale yalla mu ne su ngeen nekké ci junub na ngeen lab lu nit ñi ñew di wax nit ñi ñew di wax na wa léegi lab lu bobu moy lan yalla day ñew di ngeen dem ci surat 4 verset 43 yaa ayuha alladina amanu laa taqrabu salata wa antum sukaara xatta taalamu ma taquluun wala junuban illa aabiri sabilin xatta taxtasilu yàlla mu wax ne e yéen ñi nga xam ne da ngeen a gëm bu leen jege julli te fekk ngeen màndi ba nga xam ne du ngeen xam li ngeen di wax mune waxuma la junub nak, lu dul ne da ngay nekk ci yoon ba ba ngeen raxasu ne su ngay nekkee ci junub na ngay lablu fi mune na ngay raxasu lablu gi lan la raxasu tout court fofu la raxasu nek ngeen ci junub raxasu len, lo rek la yalla jangale coono yéen ñeen ca daan teg naan nii la ñu naan ay da ngay gis ay ñoo xam ne dañuy dem ba doon mag lu ñu mën a sangu set nangam nangam xeet googu loolu dara wéru ci yàlla lii rek la wax noppal na leen damay wax na yàlla day yenne nit ñi ñoom ñooy yene mbir yi lu ci jafe rek nit ñee ko ci dugal lii la yàlla jàngale ci junub amul leneen ku wax leneen dina dund ba dee du la indil aaya bu koy wax amul lii képp la yàlla jàngaleel boppam ci alquran mu nekk lu leer ku ci am junub raxasul raxasu mooy lan mbir ma fa nga xam ne moo tax loolu ngay raxas xatta tax tasidu ba bagee ne raxasu loolu la yàlla wax kon nag lii yaakaar naa lu leer la lu kenn ku ci ne mën a vérifier boppam la sourate cinq verset six sourate quatre verset quarante trois lu yomb la macha allah su ngeen demee nag ci tradition yi di ngeen gis ci sourate 4 verset 43 ñu fay dugal bain rituel loolu amu fa hatta tax tasilu ba ba ngeen ni raxasu jusqu'à ce que vous vous lavez foofu la yem waaye ay bain rituel loolu moom wérul macha allah sant yàlla kontaan nañ trop jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum